premier combat de la soirée. maama ngi kii mooy maama Lamine Diouf. deuxième kii bi maama. maama. maama naka bés bi tey. li tubaab naan enfin. maama OSA. wala maama ASA. ah OSA OSA enfin. parce que moom waaw waaw parce que gars yi xaar maama. maa nga tey de. daa mel ni lu jot ma. Dumbuya moom koo koy koo koy Dumbuya Magu Siteu la. kii sax di moom Magu Siteu la borom kap bi moom Siteu bokk ne ba am na lu ko maama na lu mu yor rek lu kii naa yaa ngi waa jàmm gën. ngi noonu. Dama set ci biir géew bi. Xool la muy def. Moo di sax koor ñëwal plus. Jinjeen na nga préparé. Jinjeen bu waaloo na nga préparé. Ay xoolal wëcc wala sa mayonnaise. Modou ah, ngi fi mbuuroo ngi fi. mburu yi am na fi. ndox a ngi fi. mu ngi génne bagage yi benn par benn. xool na leer non su fekkee bëriwoo génnal bu dee gën bëri lépp ci bopp ay ci suy jéem écrit waa la ñu woon suus Modou Sarko ñëwul jigéen ci loolu rek naka yëngu yi mu ngi dox taali waaw ah, mu ngi dox

waaw Babacar mu ngi gudd. fii la am nga jàmm. sant naa baax baax alhamdulilah. fi nga looy yëpp ni. nekk si rek allah di ñaan ah. yàlla suturaal ñu bu soobee yàlla. Ah. waaw incha mu ngi dal. waaw lépp loo fexe moom bu soobee yàlla. Hmm. ñu ngi ñaan yàlla suturaal ñu. mais gars wax ne seen wax la rek. waaw ah. bu si meekoo ba dongale. waaw waaw dinañ xam lépp dëgg la incha allah. sëy loolu. waaw ñaan yàlla suturaal na may ñu ndam seen. loolu ngeen di ñaan yéen. waaw incha allah. cey loolu perte loo muus muus sa goro gën laa muus loolu da yaa ko waaye per ñu gën a ne nga maa la gën a xam sa maa gën maa xam sa mbër xam sama mbër yow xam nga li mais wax jooju foo ko teg. yow sax leeral ko. nee nga Père Max day topp xale. waaw kon moom da koy topp. Ah, loolu rek la man dama lay gis yow laa gis bopp nga ci ñu ma mën a waat ne ne sax lan moo tax mais maanaam yow ni nga nekk menacé bëgg nga xam say mbër seen adversaire moo tax ngay topp làmb noonu wala. waaw mais booy cote seen nit. waaw. day jaadu dul dara sax nga tuuti ci adversaire bi pour mën a ko sa adversaire lii ak lii ak dana am avantage. Uh-huh. mais da ngay dem rek ne ko demal. looloo tax may topp xale yi. moo tax beneen bi amateur laa damay dund lamb damay dund lamb waaw. mais ëpp doole gi gars yi wax góor góor a ëpp doole moo sut. loolu daal jaratul bu jàppee maama dootul bëree. loolu daal jaratul sonn. ah jaratul. jaratul sonn de. lu gàtt ci des. waaw li ci des doole sëq ñu sànni fële ñu xam ne mënoo ëpp doole. Ah? loolu. gëmoo de. ñëwal taxaw jël fénétrité Père Max sa boobu Père Max sa wax ay fan gënal ay gënal leen lamb ji rek loo ci mën a dégg ko way ak lu mën a xew daal Mamour nañu way lamb mu ngi noonu billaay dëgg la daan na ko déedéet jël ba rëy sax daanu nga yow ma ca côté bee ba daanu ko. eh borom ñaaxara ngi ay waay waay mën a bëree neex waay melal ni Messi booy football ba Ronaldo mbala Sadio Mané waaye booy bëri tamit mel ni ordinateur dina noppale de des fois.